sëñ Abdou Mbacké doomu sëriñ Modou Mamoun Mbacké sëriñ Modou Mamoun Mbacké doomu Cheikh Anta Mbacké borom gaawaan may Daaru Salaam bu ma dee yàlla yëf Daaru Salaam may mën a denc sama sëriñ bi sama xarit sama doomu sëriñ di ba oo fu ma toll di ma nemmeeku bi ma amee corona chaque jour mu oo ma di ba seet parce que wara sama sëriñ pour ma ñaanal ma mais pourquoi ma xam ni lii day rayaatee mel ne man jàngoo ba aw ma xam-xam man mbaam laa bàyyi sama nawle yi du may wax li am man dama nekkoon faat dafa dix jours xaw a dee ma gis ay kilifa yu mag ci diine ak ci aada ak ci ci ci patronat yu bëri ak ci sport ak ci musique mënu dibaangoo Pape Diouf fa ñeneen mais corona rey leen ñu war a nekk nit ma ne man de man ci sama xam-xam bopp ak li ma daloon corona man kenn mënu ma yóbbu tubaab mais néew ma mu keneen dem naa fekkee benn jëkkee bi naan yow boo demul mënoo tere nañu dem ma ne kan laa tere mu dem m'a expliqué par euh, Cheikh moi je n'irai pas au Magal de Touba bas dama am raison ma corona hospitalisé fan du 8 au 15. Vous metti du 15 ba négatif ma au fa ba le 17 il devait contrôle négatif ma suis au le 17 juillet on était à quelques jours de la tabaski. ca laa wéeree dem toppatoo ji tabaski ma ne heure boo amee occasion danaa ko wax ñu xam ne feebar bi dafa am bu kenn bu ñu kenn gëmuloon ne feebar bi amul ndax koo gis gu mu dal ko man dal na ma dal na Moustapha Mbaba Guirassy dal na Omar Sarr dal na Aliou Sall rek président de la République dal na El Hadj Amadou Sall yàggul dal na ñu bëree bëree bëri rey dafa ay professeurs yu mag. dal na Mbappé. dal na Mbappé kon bu ñu gëmuloo Sénégal di feebar bi amul. ku ko wax dana la combattre koo mën a doon ku ñu feebare amul waxoo dëgg kon nañ wax ni man de xam naa ne man du ma dem Touba mais newuma kenn terewuma kenn damaa moo pouvoir mënumaa tere kenn mu dem Touba te ñemewu ma sax wax loolu naan keneen bu dem Touba waaye rek dëgg nag yàlla amati na ma corona te xam naa ni dañ ne ma bu jege kenn te man wóor na ma ni bu ma màggalee munu ma damay def 1 mètre ku né 1 mètre sa borom distanciation physique wo dëkk rek dëkk yalla man de Touba la dëkk diggante Daaru Xudoos daru Minam diggante Guédé diggante daru salam daru marnan fepp la xam Touba mhm. fu né lay dugg donc fepp la am xarit ci mbacké mbacké ndax murid la am fa ay xarit wa Touba bëgg Touba lool nak sëñ Moustapha salim Mbacké di sama xarit sëñ Moustapha Lakram Mbacké dek sama meer xarit nak ba mu do, doom mu ñëw tudd kon xam nga ni Touba wo fi laa bok man ma tok nek xale bu ndaw 5 ans mo ma jébbalu ci seigne ahmedou Mbacké bu seigne Ahmadou Bamba Mbacké à l'époque bi mu la dem seigne Sidi man ma don tok yóbbu seigne Fallou mu di ma ñaanal sëñ Modou Mamoudou bind sama yaram Saliou Mbacke téye ma tàkku de ba timis te bind sama yaram dama ñaanal su ma saa jeex rek toog laaw sama juf toog sama frère ancien doyen des juges président su daayira nit ñoom mosu gis sëñ Saliou ñaanal nit deux heures de temps tàkku sànni ba timis macha allah mu ngoog mu bind sama yaram bi di tiim di bind jël suuf di bind te boobu dañ mënu dañ mënu xeex bu méttee métti très bien kon boobu bu ma nee du dem Touba te Serigne Touba ni woon lii dafa am solo Serigne Touba ni woon mu hmm. nga matalee fa mu nekk boobu sax amutoon dem Touba kon bu doon gis sama kër ba yee dem Touba dama koy màggal jur boobu. jërëjëf rey ay xara wala nag. benn waaw sëñ bi benn lañu sant. Mhm. màggal gi kenn mënu ko tere kenn ndax dañu nañ ko def mais bu dee dafa am nag lu am man ma dugg ko sama kër laa koy defee ku ci mën dara kenn mënu ci dara te kenn du ko terroriser man dama ne amul ku mën a terroriser liir naa ci réseaux sociaux yi ay dof yaa El Hadj Diouf pour daa nangam nangam nangam ma ne ñu duñ ci ay nit. ñi may saaga ci réseaux sociaux yi ndax li ma ne du dem Touba duñu ay nit ndax man néew ma néew ma ne ñoom mu dem Touba. mais nag mënuñu ma tere man El Hadj Diouf murit c'est-à-dire à ne de cinq ans bëgg Sëriñ Touba moo lay noyee xasaay di le 4 avril la yor sama jabar dama du mu def fa l'indépendance dama di Sëriñ Touba mooy may indépendance le 4 avril doon ko caab boo jógee Kaolack ak ñoom Mamadou Thiam ñoom Mamadou Mamour Gueye ñëw sama kër yendu ma di leen teral ñuy xasaay may jooy toute la journée parce que xasaay sëñ Tuubaa muy maayibu muy boo ci def mhm. daf may jooy la yëpp rek macha allah yëpp yëpp ah, des bu ko doon macha allah ñoom yàlla macha allah dam may jooy may toog man boo yëkkati rek ma jooy man yàlla man bi may sëñ Tuubaa ni may dugge ñu naa fekk wala sa gëm ñu sëñ Tuubaa di sóob naan kii dafa yabaatee parce que samay noonu lañ rek bëgg ma jaxaseeg Touba daan pourquoi mu naan moom ren du dem Touba mais at yu njëkk yo ba ñuy def euh, màggal Touba kenn daawul dem am na wala amul. Mm-hmm. sëñ Modou Moustapha Tam sëñ Fallou avant avant mu ko institué sëñ Fallou ko indi. mais mm-hmm. première année nekk xalifa dafa ko sëñ Moustapha nekk na xalifa ba jeex ma su ko fay def. mu ngoog kon nag foo nekk fii ba Brescia ma fekk naa benn màggal Touba moo fekk euh, Dubaï. ma fekk sama gars yi ñuy màggal ko Sénégal yi nekk Dubaay. nga màggal ak moom ma màggal ak ñoom. très bien waaye mais li ñuy indi coow li ku bëgg a màggal yi màggal la. voilà merci waaye man du ma màggal yi. merci mettez la jour kenn du ma terroriser nag. fii la ñuy jaaree. Euh,